auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu albayaan alchamsu walqamaru bi xusbaan wannajmu washajaru yasjudaan wassamaa rafaaha wa wadaa almiizaan allaa tatgaw fi lmiizaan wa aqiimu lwazna bilqisti wala tuxsiru lmiizaan wal arda wadaaha lil anaam fiiha faakihatun wannaxlu daatul akmaam walxabbu dul asfi warrayxaan fa bi ayi aalaai rabbikumaa tukazzibaan sadaqallaahu al-aziim wa ballaga rasuuluhu al-kariim wa naxnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina shaahidiin allahumma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 yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tàmm xarit gaa ngi ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi tabaarakallaahu sunu mbokk ma al usaas asan faal moo ne moon booy tafsirati na ko jàng ba noppi door ko tafsir mu ne waaw mu ne ma nanga ko tajwid mu ne ah baat bi neexul di mu ne ma neexul ci yow ay genn gone ma nga ca Espagne nee na ma li ma tafsiragum lépp mokkal na ko mu ne ma la tàmbalee Fatiha Baqara jaar Alimran Nisaa yi maa ngi dag lan am ba ni nga agsi ni ci suuratu Rahmaan mu ne ah, mu ne ma loo romb mokkal naa ko mu ne ma mënu mënuma woon liir féeruma ijji waaye booy booy tàmbalee jàng maa daan teg sama baaraam mantam ci li ngay jàng su ma ko baamtoo baamtu ko bala ngaa delsi ma mokkal ko wala bala ngaa jóg ca laaj ma mokkal ko <laughs> kenn musu koo góor waaw xale bu góor la ndeysaan waaw kenn musu koo gis rek waaw góor góor loolu day tuyaaba ji ci am yàlla nañ ko bokk maag yow tuyaaba ju rëy la sàllaaw dey gën na yu baree bari ci àdduna si mbokk yi ñoo ngi ci suuratu arrahman ñoo ngi ci aaya ñaar borom bi mu waxee arrahman def caa teg àllama al quran ñu nekk nag ci di nab na bi ci àllama al quran tuddee ko ulumul quran bi ñu ko tàmbalee jéem nañoo xamle xam-xam boobu jëm ci xam-xamu alxuraan kañ la xam-xam bi juddu nan la xam-xam bi màgge bañ ci jógee ñëw nañ ci jéem a xamle luy alxuraan ak ci aju ñaar lu tomb bi jéemën nañoo wax lan mooy wax yu mi fi indi alxuraan ba ca tegete mooy ñeenteel bi jëmoon nañu wax alxuraan makki ak madani juróomeelu tomb bi njëkkoon nañu bokkoon jéemoon nañoo wax li njëkk a wàcc ci alxuraan ak la mujj wàcc juróom benneel bi ñëwoon nañ ci asbaabu nuzul juróom ñaareel bi ñëwoon nañ ci wàccuk alxuraan juróom-ñetteel bi ñëwoon nañ ci dajale alxuraan bi ak toftale ko nii mu mel <coughs> te sallallahu alayhi xam ngeen ne bàyyi ko fi woon juróom-ñeenteelu tomb bu jéem nañoo waxtaan ci wàcc ga alxuraan wàcc ci juróom-ñaari araf fukkeelu tomb bi jéem nañoo waxtaan ci alqiraat wal quraa mu Moodu Jaxate fukkeel beeg benn jéemoon nañu waxtaan ci règle yi nga xam ne kuy tafsir da koy aajowoo al qawaidu lati yaxtaaju ñaar jéemoon nañu waxtaan ci diggante muhkam ak mutashabi fukkeel beeg ñaar jéemoon nañu waxtaan ci al aamu wal xaas te mooy sunu bind bi weesu sunu bind tey mooy fukkeelu tomb ak ñeent mu ngi jëm ci an wal mansuuq an naasix wal mansuuq ba tey kon ñoo ngi ci arrahman allama al quran ñëw ci min ulumi al quran mbokk yàlla na jàmm yàlla na kenn ak seen njaboot dafa am ci alquran ci ay xam-xamam lu ñu tuddee an naasix am ci lu ñu tuddee mansuuq naasix mansuuq naasix mooy ki ñëw jële fi atte bi man suux mooy atte biñ fi jële mu ngi mel ni tey jamono yi ñu toll dégg ngeen ñol ñol ji nekk assemblée nationale ndax xam ngeen luwaay tubaab moom li li li lim maye da koo nangu lim nangu da koo maye ñu ngi toll ci ndax premier ministre war naa dem assemblée ca kanam député ya ñi ne waaw waaw ne déedéet ñi ne waaw waaw wut seeni lay teg ñi ne déedéet wut seeni lay teg penc mi tam wut seeni lay teg ku muy tudd yooyu sax léeg-léeg nga dugg ci ci giraawaali goo xam ne gi da nga cay sa mbokk ba far dootu leen tuddante waaw ba far dootu leen tuddante waaye daal loolu nga xam ne mooy loi sàngam dafee nekkoon loi sàngam jóg na fi loi sàngam moo ko wóotu article nangam alinéa nangam waaw yooyu nga xam ne ñoom la eh, maître El Hadji Diouf ñoom ak maître bu eh, bu waaw suñu doom ndey boobu loolu kon alxuraan daf ko am waaye moom alxuraan nag du du du ñooy daje dindib atte ne kon atte yépp jóg fi maa la ko wax bu fekkoon député ñooy daje génne atte ci alxuraan kon atte yépp jóg fi waaw boroom alxuraan di jalla jalaalu wa azza kamaalu moo xam li baax ci xeet wi la ci metti la diis ak la woyof moo tax mbokk yi tashriatu samawiya mu ngi jóge ci jalla jalaalu azza kamaalu di ko wàcc ala rusulihi li islaahi nnaasi fi l aqida wal ibaada wal muamala at yooyu day ñëw jëm ci aqida muy lañ war a gëm war koo fas jëm ci ibaada mooy li ñu war a pratiquer jëm ci muamala mooy jëflante suñuy diggante aqida nag moom duñ ko abrese duñ ko naasix ak mansuux waaw moom laa tatrahu alayha taxyir moom duñ ko duñ ko changé ndax laa ilaha illallah ba yowmal xiyaam mooy tekki laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ba yowmal xiyaam mooy tekki muhammadun rasulullah moo tax foofu moom dugal ak génn du fa am tawxidul uluhiya tawxidu rububiya tawxidu asmaai wa sifaat tawxidu eh, alxaaliqiya tawxidu alxaakimiya tawxidu zaat tawxidu tashriiya tawxidu taqniitiya yooyu tawxid yooyu eh, tabaarakallahu coppatak walbateeg naasix ak mansuux du ci dugg moo tax daawatu rusul alayhim salaatu wassalaam benn la ca asl ba waaye wóote na ci ibaada ak muamalaat ya bu nu demee ci alquran dañu fay fekk borom bi di wax wa maa arsalna min qablika min rasul illa nuuxi ilay annahu laa ilaha illa ana faabuduun waaw loolu mooy cosaanu yónent ya yonent bu ñëw da naan laa ilaha illallah inni rasulullah door na nga jóg cee ci des waaye ñoom ñépp ñoo bokkule départ boobu te mooy laa ilaha illallah inni rasulullah moom la ñu naan laa ilaha illa ana faabudun borom bi nee na musta yónni benn yonent bu jiitu yonent bii di muhammad téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni kum ci yoon yónni dana ko deey dana ko wax yu ne ko laa ilaha illa ana ku dul man doo yàlla ku man doo yàlla mbokk yi penc mi nag kuñ bëgg ci yow ne la yàlla nga ku bëgg a bëggal nit ñi ne leen diw yàlla la te yàlla dong nga yàlla ku yàlla doo yàlla moo fi nekk démb nekk fi tey bu subaa moo fi nekk arrahman moom rekk allama al quraan moom rekk xalaqal insaan moom rekk allamahul bayaan moom rekk moo tax muy wax yonent yi ne leen nee nit ñi man dong maay yàlla bu fi benn yonent teg loxoom ci dënnam ne maay yàlla mukk kenn du yàlla ci yéen man mii maay yàlla laa ilaha illa ana faabudun waaw faabudun mu ngoog su ko defee al ibadat ak al muamalat moom fa innaha tattafiqu fi l usus al aama allati tahdufu ila tahsibi nafsi wal muhaafasa ala salaamati l mujtama ibaadaat yi te mooy julleeg woor na ta asaka dem makka mu aamalaat yi te mooy dencante geeg ami doom yar leen ak jënd ak loolu fondement yi muy tege lépp mooy jëm ci yar nit sàmm ko noppal ko yar nit sàmm ko noppal ko te yar bakkanu nit sàmm ko noppal ko mooy nekk noflaayu pénc mi mooy nekk jàmmam ñu teg ko ci ataawun wal ixaa dimbalante ak bokkoo waaye dimbalante ak bokkoo pénc yi nag mën nañoo wuute ay bëgg-bëgg péncum Màkka la muy bëgg péncum senegal mën na koo ñàkk bëgg péncum Sénégal li muy bëgg péncum Màkka mën na koo ñàkk bëgg waaw mataalibi Màkka mën naa wuuteeg mataalibi senegal moo tax la ñuy nangu foofa mën nañ koo wut wute fii la ñuy wute fii mën nañ koo ñàkk nangu foofa soo ko seetloo sunu jigéen ñi nga xam ne dañuy aji màkka te duñu bàyyi xel ne dafa am ci biir diina ji loo xam ne ay usul la kenn du ko soppi nga gis jigéen ju jóge fii ci senegaal solo ni senegaal ju solo dem màkk ndodd ma nekk ci biti dënd ba nekk ci biti nopp ya nekk ci biti mu fab lu ñu ko musóor gàll ci kawam nga xam ne nogay bu demoon màkka ni muy demee ngénte ni muy demee ngénte sañ na koo demee sañ na koo nekke màkka adduna tukki moo tax mataalib yooyu penc mee mën na koo bóotaleeg penc mi waaw lu am solo la lu ama am solo la moo tax borom bi tabaaraka wa wàcc ci alquran di ñu ko defal nim ñu koy defal léeg-léeg am lu mën a dem ci dat sàngam luñ soxla woon ñu dem barab sàngam soxla wootuñu ko alxuraan moom ni mu ko defee mooy mooy li dëppoog li doomu aadama di dund waaw moo tax sunu borom philosophie tashri te mooy tëral ab sharia ci pénc mi ay loi constitution règlement intérieur ak statut loolu borom bi tabaaraka taala moo ko féetewoo ndax lan laa yusalu amma yafal wa hum yusaluun du def bañ na ko lu tax nga def lii moom sunu borom du wax bañ na ko lu tax nga wax lii moom sunu borom mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nag ci ak seen njaboot maa ngi ci suuratu Rahmaan maa ci aaya 2 allama al quran maa ngi ci ulumul quran maa ngi toll ci tomb bu tudd annaasix wal mansuux annasx ci arab mooy jële fi dara walla toxale ko fi jële fi dara dara nekkoon fi nga jële ko fi yóbbu ko feneen loolu tey tekki annasx waaw euh, ci misaal kero ba e, sunu waajur wa xaj ahmed dem sookoon di tafsir ba toll ci téere boo xam ne al usra al umariya ñoo ko moom seen bàyyi ko liggéey Cheikh Omarul Fuuti rahmatullahi ali mu ñëw ne moom téere boobu la soxla ndax am na fu ci toll ci tafsir téere booba ci lay sukkandiku ci loola sëriñ ba mu fa fekkoon ci al usra al umariya ne ko téere baa nga Niger wala Nigeria kon xaaral ma jëlee li la ko waaye mag ñi daanañ jëlib téere ñu ne la téere bi mënuñu la koo jox nga nas ko nga nas ko ko mooy lan nga toog bind ko bu doon photocopie yi am na nag tey danga ko cay def rek photocopie ko nga dellusiwaat waaw moo tax tubaab bi def ko ndeysaan. am na sunu menn mbokk mu nekk fële ca Louga ñu ko wax RFI mbaay yal na ko yàlla yokk wér nee tubaab bi ku xamoon ay maamam neex naa tagg ndax lim def daa bari <laughs> kenn mësu koo gis rek moo tax a nasq loolu lay tekki waaw borom bi ma ngay wax ci alquran lu niroog loolu inna kunna nastansiq maa kuntum taamaluun lu ngeen mas def copier naa ko denc maa inna kunna nastansiq maa kuntum taamaluun lépp lu ngeen mas a def ci àdduna toxal naa ko ca ngeen ko jëfe bind ko ci seeni téere copier naa ko kon nasxaa nga noonu bu dee ci sharia nag bu dee sharia mooy yëkkati ab acte sharia teg fa beneen acte bu gën a woyof mbaa bu gën a dëppoo ak pénc mi bii am na beneen ñëw teg ca waaw xam ngeen ne bi koor di door a xew bi koor door a xew ku woor digg bëccëg moom dangay woor waaye bu guddee doo joxe ay soxna si du jëlug ay diiru weeru koor wi loolu moo xewoon diiru weeru koor wi nga xam ne bu ñu umee koor rek léegi joxe ak ay xew yi bëccëg moom ba xaale wuñ ko waaye guddi gi dañ ne woon bu guddee bu kenn joxe ak ay waaw loolu niveau la ñu àgg ba niveau boobu am ñum diis ci ñoom buñ koy teggi dañ koy teggil ñëpp ñam woyof ci ñoom ak ñum diis ci ñoom xëy na loolu am na ñu ko man am na ñu mën a toog weer duñ joxe ay am na ñu mën a toog weer duñ jël ak ay mi ngi ci jigéen ñi mi ngi ci góor ñi waaye nag loolu ñëpp ñu ko te règle boo xam ne bi daa am na ñu ko mën ñu ko mënut loolu jar naa bàyyi xel gis nga sunu penc mii li tax mu jafe mooy suñu loi yi ci tubaab lañ ko bind suñu interdit yi ci tubaab lañ ko bind suñu euh, recommandation yi ci tubaab lañ ko bind waaw suñu discours yi ci tubaab lañ koy wax lépp lañ koy tubaab bise bi si defeem ñëwagul sax fi nekk ni ay xibaari tubaab wala fa yooyu amutoon waaw amutoon wala boog nam ami daal mooy lu lu xorom rek léegi nag loi day ñëw nekkoon kon yéen ñëpp na ngeen ci bokk yam moo tax fi ne suñu penc mi ñi jàng tubaab rek ñoo xam loi yi ñi jàngul tubaab sama classe gi netti woon naa leen ka tuuroon ndox ca miir ba ca Mbàkke ñëw ci miir bi saw ji police ba jàpp ko ko lu xew mu ne ko dangaa mënta jàng mu ne ko mën naa jàng kay mu ne ko luñ bind fii luñ bind fii waa ji ne ko dañ fay bind saafaal faal am na oto saafaal faal am na oto benn transporteur bu nekkoon mbàkk yàlla na yàlla yokk ko yërmande mu ne ko saafaal faal am na oto waa ji ne ko yow kay mënoo jàng mu ne ko ah mën naa jàng kay waaye wax na dëgg mën naa jàng lii la munta jàng sunu waaye suñu diggante loolu la alxuraan moom di bañ ci noonu moo tax bu indee àttee walla bu teggeeb àttee da koy généraliser ñépp bokk ci yem waaw maa nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha borom bi nee na su ma leen jëlalee benn àtte bi ma fi jële bi may indee koy dàq moo koy gën a woyof bi indi moo koy dàq moo koy gën a woyof waaw moo tax alxuraan daal di ñëw ne yéen ñi ma tere woon ngeen di joxe ay ci koor gi dindi naa àtte ba léegi ku bëgg a joxe ay na joxe ay ku bëgg a jël ay na jël ay waaw xataa bay na al xaytul abyadu min al xaytil aswadi min al fajri thumma atimu siyaama ila al layli tey sama borom bay mu du jaxate allahu akbar tey sama borom hmm? Euh, su ko defee naasix ak mansuux ki ñëw fekk ab àtte mu ñëw teggi ko ndànk nun lay nun lay demee ci miiraas ci miiraas na miiraas tëdde woon bu njëkk mooy alwasiyatu lil waalidayni wal aqrabin waaw waaye bi ay miraas ñëw yuusikum laaw fi awlaadikum li zakari mithlu xadil unsayayn day nasaqal lële daal di ñëw toog moom waaye nag day ami sart mooy atte bi ñuy dindi ak ki koy dindi lépp day nekk ci biir sharia ñaareel ba mu nekk tegtal boo xam ne yëkkati lii ak teg fële dafay nekk xitaaban shariyan mutaraaxiyan anil xitaabil mansuux xukmu ñetteel ba xitaab bi nga xam ne moom la ñu yëkkati dafa indi beneen xitaab ah dañ koy tënk ci waxtu woo xam ne waxtu wu ñu xam la fii lay tàmbalee fee lay dem jamaa maanaam mbooloo mu baree bari danañu dugal ci loolu seeni xam-xam mooy boroom xam-xam yi lu mel ni faafu wasfahu xatta yatilaw bi amri ginnaaw def ne xatta yatilaw bi amri loola kat mu ajjal bi ajal wal mu ajjalu bi ajalin la nun laa laa tun sax fiihi kon ngeen baal ma mbokk yàlla na jàmm yàlla nag ci seen njaboot maa ngi ci suuratu rahmaan maa ngi ci aaya al quran maa ngi ci annaasix wal mansuux beneen tomb bi euh, annasx ci fan lay am li ma jot wax bu ko déggee dañuy xam ne nasx du am lu dul ci biir al awaamiru wan nawaahi mooy digle yéeg tere yi digle yeeg tere yi moo xam dafa nekk lu ne wét walla lu nu junj ci xabar moom digle yeeg tere yi waaw waaye nag du du ci al itiqaadaat ci pas-pas yi ndax yooyu ci jëmmi sunu borom la ak coppi kooku walbatiku du ca am waaw naka noonu melokaanam yi moom sunu boroom téeréem yi yonentam yi alaaxira waaw teggi ni jëm ci jikko waaw usulul ibaadaat waaw dégg nga ci alxuraan mu ne sharaa lakum min addiini maa wassaa bihi nuuha wallazi awxaynaa ilayk wa maa wassaynaa bihi ibrahim wa muusa wa isa an aqimu diin wala tatafarraqu fii sadaqallaahu l borom bi nee na euh, moo moo moo rëddal moo leen rëddal lëm rëddaloon noox moo leen rëddël lam dénkoon noox mi jiitu ci yonent yi démb mu dëppoog lii nga xam ne moom laa la wax yu yow mi ma mujj yoon yónni li nu dénkoon Ibrahima it lool la dénk ko Moussa dénk ko Isa soo ko boolee muy ulul azmi lu leen dénkoon mooy taxawal leen diine te bu leen tàqali ko bu leen tàqali ko mukk ci diine ji di tojantey bopp ak waxante lu bon allahu akbar bu leen tojantey bopp mukk waaw bu leen waxante lu bon waaw waaw mu ngoog loolu noonu la ko tërale ba tey ci sharia yaa ayyuhal lazina amanu kutiba aleykum siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum laallakum tattaqun waxoon na sànq ci eh, joxe ay ak ñàkk joxe eh, bu dee ci sharia ba tey wa azzin fi naasi bil hajj yaatoo ka rijaala waaw wooxal nit ñi ñu aj bu dee ci xisaas xisaas mooy peine de mort xisaas mooy fayul ku ñu tooñ xisaas mooy fayul ku ñu tooñ wa katabna alayhim fiha anna an nafsa bi nafs wal ayna bil ayn wal anf bil anf wal udna bil udn wa sinna bi sinn wal juru ak xisaas loolu ci ci wàllu sharia ma nga fa ne wét nasax naasix ak mansuux duggugu ca ba léegi mooy borom bi nee na dafa bindoon ca téere yu njëkk ya ak téere yu mujj yi mooy anna nafsa bin nafsi ku rendi nit rendi leen ko ndax ku rendi moom yaa tey ku rey te tey ko ay bokkam baaluñu ko laaj ñu ko ndàmpaay nañ ko rey hmm? waaw waaw nañ ko rey loolu nag mi ngi ci alxuraan ji léeg-léeg ñu jàngal ko koo xam ne d'accordul ci woon maanaam nit koo xam ne d'accordul ci acte yàlla yii parce que culture bi mu yor nee na mooy culture grecque te ñoo raw ci àdduna si mu dégg alxuraan wax lii mu ne d'accordul ci peine de mort léegi nag mu faatu ilimaan yeeg kaang yeeg fóor yi daje wàccel ko kaamil waaye moom kay waroon na ne bu ma faatoo bu ma kenn wàccel kaamil nañ ma nañ ma nañ ma jàngal la case de Birama wala le pantalon de Wésiri nañ ko jàngal lool ànd na nafsa bi nafsi borom bi nee bakkan moom bakkan rek bakkan moom bakkan rek ku soode sa wujju ñu soode la waaw ku soodi sa wujj ñu soodi la seet waaw ku lañ sa wujj ñu lañ set la ku posone sa wujj ñu posone la an na nafsa ah, bi nafsi rek wal ayna bil ayn ku mu ne ku fuq bët rek ñu fuq bëtam ah waaw waaw ku fuq ku fuq ñaari bët ci nit ñu fuq sa ñaari bët yaaya jàmme ndeysaan mi ngi woon fii ci Gambie réussir na ko yàlla na ko yàlla yokk wér ku foq bët ñu foq si bët rek wala am fi bil am fa ku ku kurpañ bakkanu jaambur toj ko ñu toj sa bakkan waaw kurpañu xar kanam kurpañu xar kanam rek tépp mu ne tépp waaw wala un fa bil wala usna bil usni ku mbéj nit mu mbej la ku mbéj nit rek mu mbéj la juge bi taxaw procureur taxaw avocat yi taxaw kiñ mbejoon taxaw ki ko mbejoon taxaw ñu ne acca mbejal mu toj not bi tël waaw mooy wal usna bi usni wa sinna bi sinn ku damm bañ ñu damm sa bëñ waaye mbokk cay sunu borom lii dala wax lii dala wax sharaa lakum min ad-diini lii fi amoon démb waaw sharaa lakum min ad-diini maa wasaa bihi nuuha lii di moo fi amoon ca nuux wa ibrahima wa muusa wa isa wa ma aw xay na wala si aw ilayk lii daal moo fi amoon wal juruha qisaas <laughs> nee na xaañ-xaañ nag ku xaañ duñ la xaañ ah déedéet ku xaañ dañuy natt no xaañ-xaañ ba toll nga joxe ko ci ay gëléem walla njëgi gëléem ñu dem Mauritanie laaj fa gëléem gu jigéen gu ëmb ëmbam bu njëkk lu muy jar giléem gu ëmb ëmbam bu njëkk lu muy jar nga joxe léeg-léeg nga joxe cinq giléem ndax xaañ-xaañ bi nga xaañ waa ji euh, euh, euh, centimètre dafa xaw a xóot waaw loolu docteur yi ñoo koy ñoo koy natt ñoom docteur Ana Dia ak ñoom docteur Ndeye faatu Ndeye faatu Diallo Albir Royer la nekkoon ndeysaan yal na ko yàlla yokk wér hmm? moo tax ku xaañ duñ la xaañ ndax am na koo xam ne bu xaañee xaañoo dee dit waay waaw xaañ-xaañ jigul fenkat waaw la nasam bin naasiya naasiyatin kaasibatin xaatia waaw tt alquran rekk alquran ci sunu borom la jógee kenn xalaatu ko mbaa nga fent ko bu demee ci jihaad jaat wa ay ayyin min nabiyyin qaatala maahu ribbiyuuna kathiir ci jihaad ñaata yonent ñoo xëy ànd ak i gaay di dem di xeexi pour taxawal diine kathiir ñu baree bari lañu bu dee ci wàllu jikko wala sair xaddaka linnaas bàyyil nit laaj la nga dëngal sa lex bi waaw ki lay laaj jàkkaarloo ak moom ci ay bët ba amee jox ko ba amul gàntu lu rafet wala tamshi fil ardi maraha bàyyil dox di tiitaru montagne yëla sut foofu ti tiitaru tiitaru wuñ loolu tamit ci alxuraan yooyu laa yaddaxulu nasq hmm? ci yooyu mu ngoog eh, mu ñëw ci beneen tomb mbokk yi yàlla na jàmm ñaal nekk ak seen njaboot mooy nan lañuy xamee ne atte bi nasq am na ci lan mooy am solo nask boroom xam-xam yi yal na yàlla fayal leen xeet wi rawatina al fuqaha al usuliyuna waaw al usuliyuna ñoom docteur Samb yal na yàlla sàmm leen hmm? ñoom dañuy xam yooyu ba xam atte yi su boobaa du jaxasoo du amum jaxas moo tax xam-xam bañ cay xam day bari lool sidna aliw sidna aliw dafa mas a gis benn attekat dafa mas a gis benn attekat procureur walla yu demee ni ki yooyu mu laaj ko ataarifu naasix min al mansuux ndax xam nga laay ju folli morom ja toog ak laay ju ñu folli attekat bi na ko ah, luy loolu xaw ma ko de mu ne ko xëlëg ta wa ahlëg ta alku nga te koo àtte alak nga ko alku nga te yaa ngi alke waaw moo tax ibnu abbas fóoree xel wi ba mu agsee ci aaya wa man yu'tal xikmata faqad uutee xayran kathira ibnu daa bokk ci ko doon firee wa man yu'tal xikmata naasiqa wa mansuuqa wa man muhkama wa mutasaabiha wa man muqaddama ala muaxir wa muaxira ngeen baal ma wa man yu'tal xikmata noonu la ko doon firee moom ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na borom bi daa wax ne képp kuñ jox xikma képp kuñ jox xam-xam képp kuñ jox nga mën a joxe sa xam-xam jox na la yiwu bari danay wax ne léeg-léeg laayu ji ñi def daawa dañ koy soxla ci yenn contexte yi ndax boo ko yóbboo ci daawa mooy ku koy def danga nga war am boo ko yóbboo ci feneen nga ne ku koy def danga ngaa war a teey Ibn Abbas dégg nga ni ko firee ku yàlla jox nga am xam-xamu naasix ak mansuuxa am xamu xam muhkam ak am xam-xamu muqaddima mu axira am xam-xamu xaraam ak xalaal faqad utee kasira waaw nee ku xàmmee aay ju ñu folleeg ja ko folli xàmmee aay ju aay ju rungeeg ju rungewut aay ju bërim piréeg ju ko bëriwut ku xàmmee aay juñ jiital ak juñ mujjal ku xàmmee aay ju araamal ak ju daganal ibnu abbas nee na faqad uutee xayran kasira jox la xam-xam bu baree bari kenn ëpp du xam-xam eh, ngir ñu xam nag naasix ak mansuux la ci jiitu mooy toxal boo xam ne wóor na ne lii tuxu na lii tuxu na eh, nga xam ne day mel ni hadis boo xam ne saxaaba nettir na ko ci kuntu nahaytukum an ziyaaratil xubuur alaa fa zuuruha tere woon naa leen ziyaare xabru léegi tereetuma leen ko jox naa leen diggalu di ziyaare xabru ku ko dégg xam ne kon bu njëkk euh, dañ ñoo tere woon ziyaare xabru jëkki ba mu yàgg tereetuñ ko ñu digal ñu ko ba ñu ko digalee tam ñun ñëpp ñu jóg di ko defi góor jigéen benn addis ne euh, laana laana laahu zuwaaraatil xubuur mu nga e, lu am solo la ci xam naasix ak mansuux ñaareel ba al umma daje ne lii moo folli lii àtte bii moo fi jële bii ñetteel ba at aay moo jiitu aay ji ci dar sàngam wala aaji moo mujj aaji ci dar sàngam moo tax mu fassiru na yi tabaarakallaahu taxaw ci taxaw yi am solo mu ñëw ci beneen tomb Baye du Diakhaté mooy xalaati lenn ci boroom xam-xam yi walla waa àdduna ci euh, naasix ak mansuux ñu mel ni al yahud ñoom dañ loolu warta am alyahudu dañuy wax na ñoom loolu war ta am ba noppi nag dañuy bind ci téere yi nga xam ne mooy téere orientaliste yi ba ki nga xam ne géejuwul ci xam-xami sharia xanaa moom ca yooyu lay liir léeg-léeg wax ci pénc mi lu ñëpp téye seen gémmiñ ndax alyahudu dañuy dugal seen loxo ci yëf yi kere seen mbir nekk ay orientaliste al di bind di jegeel yëf yi di xàjj aka jàllawle ba léeg-léeg nit liiral leen wax ci pénc mi loo xam ne noonu wax du noonu ndekete foofu la jële jàpp ne loolu xam-xam la waaw mu ngoog loolu loolu taxawut kon ñeneen ñi mooy arawaafid arawaafid benn groupe lañ ci groupe bi ahlu shia ñoom tam dañoo bokk ñi nga xam ne naasix ak mansuux nee nañu loolu mënta am léeg-léeg ñu def ko yaatal ko ba mu ba ëpp sax nag bu ñëwee di firi yamhu may ma yasha wa wa yuthbit wala wa yuthabbit euh, muy alwax almax wal ñoom tam dañ cee wax mu ëpp te alislaam bëggul lu ëpp bëggul lu yées <coughs> mu abu muslim al asfahaani bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen cay tudd ci ci xam-xam boobu waaye jumhurul ulama lañ ca wax nag loolu moom moo digg doomu te moo yenu maanaam ñu ne xel nangu na ko sharia nangu na ko waaw ndax alxuraan lu mu wax noonu la te alxuraan moo ne wa ida baddal naa aayata makaana aaya moo leen min aayatin aw nun siha bi xayrin min aw mitliha ko wax kon jumhur ñeenti wax nga noonu waxi waxi alyahudu waxi rawafid waxi abu muslim ak waxi jumhurul ulama mbokk yi ma ñëw ci beneen tomb mooy xaaji nasx yi ak aqsaamu nasx boroom xam-xam yi dañ koy xaaj def ko ñeent mooy alquran bu nasaxal alquran waaw nasqul quraani bil quran boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci loolu am amuñu werante xam ngeen bu njëkk ku sa jëkkër masafaatu am at ngay toog ku sa jëkkër masa am at ngay toog di tënj bi alxuraan ñëwee daal di koy nasaxal daal di indi ne ñeenti weer la ak fukki fan ñaarlu xaaj bi nasaxal alxuraan bi sunna waaw atte bu am ci alxuraan sunna nasaxal ko waaw waaye sunna bi koy nasaxal du nekk al ahad as sunna al ahadiya boroom xam-xam ne loolu boobu moom mën nañ koo teg ci suuf bu dee tawaatur nag aha kay ajaasahu malik wa abu hanifa wa ahmad li anna al kull waxyun wa maa yantiqu anil hawa jàng nañ ko in huwa illa waxyun yuuha ak itam wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim ñetteelu xaaj bi mooy nasqul nasqu sunnati bil quraan mooy bi yonent bi door ñëw Madina xam ngeen ne fa doon jublu bokkut ak bi alxuraan ñëwee fa mu ne ko dee fa jublu ñeenteel bi nasqu sunna bi sunna waaw nasqu sunnati bi sunna yal na jàmm yàlla nekk yéen ak seen njaboot yal na def jàmm ci réew mi nga dee ko wér am na ci nasqu tam ay xeet mooy nasqu tilaawa wal xukmu maan atte boo xam ne njàng maag atte ba lépp lañ dindi beneen bi nasqul xukmi wa baqaw tilaawa dindi atte ba ba noppi njàng ma des fa ndax tuyaaba di ca juddoo bu ñetteel bi nasqu tilaawa ma baqaayil xukm dindi njàng mi te atte bi des fi mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ak seen njaboot yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër teg leen seen baaraam foofu ñaan suñu borom may dund ba ajjuma te weesu ko jaajëf suñu sponsor yi te woo yeneen ñi ñu ñëwagul ñu ñëw yëgle seeni yëgle sponsorisé suñuy émission mbokk yi ak seen foo rekk tey jataay bi di leen bàyyi sunu mbokk alaaji sëriñ Mbàkke Sylla ci bii di xamtu ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ak aj gu nangu ki leen nekkaloon ci wàllu xaral moo di seen mbokk Pape Lay Dieye yàlla sàmm ko te sàmm na ci tafsir bi seen mbokk Alioune sàll yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu